revue de yi tey ak euh, Birahim Touré lay doon. dalal na jàmm démb la ñu leen dalal dalal gu njëkk ci biir conseil de ministre la tribune di ñu xamal ni gouvernement Abdoul Mbaye II ministre yu bees yi waat nañu ni lu ñu leen dénk dinañu ko mëtal ba mu mët sëkk lu ñu def leneen sax du doon liy dëgg ni ko Birame di junjee ci biir la tribune ñaar am jël ndam li wala sax faatu ndax Sénégal dootul ñu nangu yenn yëfu cuune yi en tout daal Macky moom li mu bëgg leer leer na direct info di ñu xamal ni démb ca conseil des ministres bu njëkk bi moom président de la république dafa teel a xamle ni li mu namm mooy ñu gaawal réforme yi lu ñu war a doxal doxal ko fexe ba mëtal ko maanaam daal yokkute la bëgg ni ko Abdoul Mbaye premier ministre di fàttale ci biir direct info le pays au quotidien moom di ñu fàttali ku bokkoon ci biir gouvernement bi te tey bokkatul ABC Alioune Badara Cissé dàq nañu ko waaye ndax xam nañu lan moo ko waral le pays au quotidien di ñu xamal ni xëccoo ci diggante maak Mansour Faye di doomu ndeyub Mariam Faye moo waral coow li yépp ka nekkoon ministre des affaires étrangères déggawul dara ak mbokku première dame boobu ca Ndar Sud Quotidien moom it di àddu ci coow loolu duñu xamal ni kii di Macky Sall bégul dara ci liggéey bi mu dénkoon eh, xaritam ba woon xaritam woon ndax tey mel na ni ABC bëggatu la sax teg yi gët kii di Macky Sall donte journal L'Enquête mu ngi ñuy xamal ni Macky Sall moom mu ngi bàyyi xel xel ka nga xamee ni moom moo nekkoon ministre des affaires étrangères ndax du ko seetaan muy wax lu ko neex di def lu ko neex ñu ñëw bàyyi xel tamit bokk na ci Abdou Lo ak Ali Koto ñi ñu dàqe woon ci gouvernement bi réew mi quotidien du ñu xamal ni tey wutal nañu leen yeneen yi poste am na feneen fu ñu leen teg le quotidien le quotidien di ko dëggal du ñu wax ni Abdou Lo dénk nañu ko lii di ARTP Ali Koto Ndiaye moom jébbal nañu ko fonds de développement du service universel yëngal ni ko Cheikh bu Diop di waxee ci yéenekaay bii di la pays au quotidien njiitub m patriotique ne ni président bi fi nekk moom président par défaut la bu jiite ab gouvernement boo xamee ni def ñu lenn lu dul di lambaatu lambaatu moom fasuñu ko yéene ci lu soxal li ñu ko dénk moom Pathé Seck di ministre di ñu dénk wàlluk intérieur bu bees bii di xamle ci biir réew mi quotidien ni dina indi ay coppite ci mbirub renseignements généraux ndax seen liggéey dafa mel ni dafa des lu bari moo waraloon sax ci jamono yële ñu weesu coow lu bari tukkee ci mbirub Cheikh Béthio Thioune ba indi woon fitna ci biir réew mi njiital cantaakon yi moom di Cheikh Béthio Thioune yéenekaay bi di l'enquête mu ngi ñuy xamal ni euh, wér yaramam démb indi na coow lu ne kur médecin bi ñu ko yabaloon fële ca hôpital principal gannaaw bi mu ko xoolee seet ka seetantal ko nee na daal ni moom mii di Cheikh Béthio Thioune euh, luy wokk dërëm wokk ko di maanaam daal dara dalu ko muy lu docteur ba nekk ca France di ba mu set ay AVC ak i ay tension ak yu ni mel ba pare ñu xëy tey ne ni dara dalu ko en tout cas altine la ñu jàpp ni dina ñu ko delloo moom Cheikh Béthio Thioune fële ca Thiès ngir mu jàkkaarloo ak kii di juge d'instruction mu mel ni dañu ko fas ne déglu ci coow loolu amoon fële ca Médinatoul salaam déglu nañu ko ba noppi àtte ko ba sax teg ko ay daan moom Tamsir Ndiaye Jupiter Direct Info mu ñuy xamal ni am na ñuy sàkku ñu bàyyi ko mu ñibbiwaat këram muy rajo Ligue sénégalaise des de l'homme ak Amnesty International international ku ci nekk ca fa nga nekk yaa ngi xëccu ngir ñu bàyyiwaat kooke di ab journaliste ñu ràññee woon ko ci wàlluk mbindam waaye tamit nga ñu fësal ko ndax ay mbirub ñaawteef yi mu doon def ci kaw ay góor ni moom loolee nag yéenekaay bi di la populaire di dëggal ni fi ñu toll ni am na ñuy xëccu ngir ñu bàyyi ko mu ñibbi la tribune moom li muy dëggal mooy ni coow li am ci biir douane gannaaw bi ñu jàppee ki nga xamee ni moom mooy Luc Nicolaï waaye tamit Beach fippu dëgg la douanier yi def ni ko la tribune di waxee tàggat yaram nag la ñuy daanale ak coow li am ci wàlluk làmb ba léegi gannaaw bu ñu tëjee kii di Luc Nicolaï dafa mel ni lu ñu war a fay mbër yi boo maywul dina gën a wàññeeku sunu làmb di ñu xamal ni Gaston mbeng mi nga xam ni jamono yi moom moo fi gën a fës ci wàlluk promotion ci wàlluk làmb moom tàmbali na di xeex ñii di VIP yi li mu bëgg moom promoteur du peuple mooy cachet yooyu sax ñu doon wax ni dañu koy yamale ci soixante-quinze millions nañu ko wàññi mu mel ni loolu tey la koy mën a wax ndax ay jamono sunu lam mu ngi ñuy xamal ni xëccoom ak yeneen promoteurs yi taxoon na ba mu fay ay mbër lu ëpp sax cent million bu fekkee ne tey dafa bëgg ñu wàññi ko dafa fekk xanaa gafa